à ne pas euh, affronter les Sénégalais. Je crois que Ousmane Sonko cache euh, euh, euh des choses. c'est lié à son... Euh, à son peut-être que nous devons... Ah, voilà. parce que quand même man man mënu ma imaam mais ya, Diop man su ma mënul woon dem su ma demul woon ta su ma deful woon dara nii nga def ma premier ministre mm. soo ma joxee ñetti weer Aïssatou Diop moi je carbure je travaille comme si j'étais à l'université ah bah oui oui dama jàng comme jàngale ko eh, dama koy jàng busu ma ko def ok d'accord mais dama koy dama koy j'apprends j'apprends tout à fait tout à fait te te te te te wax dëgg yàlla su ma ko jàngee dinaa ko ah, ñetti weer mm. ñetti weer pour se préparer am ay conseils am lépp les gens là ils vont travailler avec moi ñu teg mbir ah ci table on va faire de huit de 8 h 20, Bah oui. Chaque jour. Pour préparer affaire vous loolu moo jox délai entre 60 et 90 jours. parfaitement pourquoi am a une déclaration pour mën déclaration en un mois mhm. un mois pour les def euh, premier ministre def ils ont besoin peut-être de deux mois et demi ils ont besoin carrément de vider les 90 jours avant de venir parce que les ñu defaan si mais je crois que bu jours il apprend trop là. Euh, mais c'est tout. de rek wala et puis dafa moi je crois que man man pas. quoi il a beaucoup trop parlé. et voilà Macky aussi il y mort parce que parce que a fait beaucoup de choses dans ce pays là mais on te mhm. ah, il a arrêté sa sortie quoi chance. Ah. amul chance amul chance xam nga nga nekk pays xam nga man de indi si dégg Ndeye wax benn wax bu gaaw. Ndeye Fatou Ndiaye ñu ngi nuyu. waaw ñu ngi lay ziar bu wér. ñu ngi si dégg ci benn émission. mais affaire moom daf may dikk toujours nee na nee na nee na mënul comprendre quoi nga gagné ba pare di c' est vrai c' le constat. moom day mer rek quoi mais day mer rek. mais c' est quoi le problème. c' est parce qu'il n'est pas président de la République. mais est ce que dafa am dafa ñu leen tuddee. ñu lay def président sax du nay. du nay

il l'a dit mais il l'a dit hmm. madame hmm. madame est-ce que a dit, madame hmm. Ousmane Sonko a si une déclaration Vous mu def keroog Moi, je mu daleek la wëri lui, il ne dort pas la nuit c'est vrai mais vous il ne dort pas la nuit quand tu as 80 80 morts dans la conscience ak ah? oui yaa ngi dit, mais c'est grand grand li nga accident boo provoqué xam nga nit yenn saay mun nga fóote may ma may mu ñëw mm-hmm. gis nga mm-hmm. nga si si tali mun nga foote te yow doo def accident bi mais yaa fóote ñaari oto laalante parce que yaa fóote parce que kenn ki sax maanaam dafa la doon jéem éviter sax ba dem am fu mu dal mm-hmm. yow ci continue day toog xel du dal mais boo demee y a la conscience de minuit je di mais yow est-ce que sax waa ji deewul Oui, et c'est ça de ta faute. Oui, Mais tu ne peux pas appeler 80 enfants des autres hmm, à se mobiliser autour du projet, à le défendre jusqu'à leur vie. nga tëri di nelaw boo ko buggee sax doon nelaw Saliou préparé leen ma vidéo jomaay pour appeler, petit va jomaay tamit léegi damay commencé ko vaar ba pare ne toll nii moom ah, non euh, teel a gasta gasta <laughs> Saliou Saliou ba pare ne ne ba pare ne vaaru la lan la waxati ba ngay ba euh, non complot Sénégalais complot hmm. des Sénégalais qui sont bons. qui hmm. sont bien. Ils hmm. parce que parce que gars comploter mais sénégalais ils ont bëgg ñu rassurer ont dossiers pour prouver ni complot ah oui tu, pour prouver affaire complot et puis quand on dort pas peut-être que aussi est-ce qu'il y a est-ce est ce que suite amul. ah ah. da ngay laaj rek non da laaj rek. déglu bi. la war nga xoolaat sa bopp. dëgg rek ay dëgg la ca gannaaw dëgg ay caaxaan la. waay. njiit bu demee bu yow mënatoo wax wax joo xam te nit mën na ci dóor doomu ça signifie war nañ xool war nga xoolaat sa dëgg rek ay dëgg la ca gannaaw dëgg ay caaxaan la. commencé dama commencé yónnee affaire yi bu demee ba yow mënatoo wax wax jox ci dóor doomam